mu jeex euh, Khoudous <laughs> waa non non gis nga lii laay waxati Salma da nga perturbé nit ñi. non non euh, Salma li mu def dafa baax. Khoudous nañu immobilier dégg ñu bàyyi la waxtaan ak. lii euh, mooy indi immobilier rek lii mooy indi kër rek immobilier lii moo jiitu ci kër. mosay see kër moo koy jiitu. voilà lii bu nekkee ci kër kër gi day baax. waaw la la parole sama yoon nekkatu si instant non c'est Salma vraiment nag Salma voilà. <laughs> Salma daal moo fi nekk. alors Babacar Sarr. yow da nga bokk ci plateau ci ci ci euh, collectif bi nga xamante ne moom la taxawal ñi dëkkee foofu la sa Daaru Salaam extension. mu sesoo ci euh, euh, maanaam toolu euh, ki fi nekkoon jiitum réew bu Sénégal Abdoulaye Wade yéen ab benn promoteur moo ñëw ne leen na ngeen fa jóge waaw lan moo waral loolu bon ñun dañoo dëkk dañoo jënd suñuy terrain légalement avec promoteur yi nga xam ne ñoo doon jaay suuf si ak mairie yi ndax ñu ngi bokk ci mairie yu Kër Massar moom moo def lotissement bi ak un certain promoteur bu tuddoon sëriñ Abdou Thiam ñu jaay ñu ay terrain defal ñu suñuy papier ay délibéré ndax loolu la ñu mairie mënoon jox mais ñaari mairie ñoo ko seqoon Kër Massar ak Tivaouane Pël ñoom ñoo seq fi ñu dëkk loolu avant acte 3 de la décentralisation voilà avant acte 3 la mais léegi gars yi sax décentralisé na ba ne leen ñun fële lañ bokk Tivaouane Pël bi ñu jëndee suñuy terrain tabax man mii di wax ak yow maa ngi jënd en 2009 mhm. tabax ba ñibbi en 2012 kon yàgg naa fa photo bi ma jëndee aussi bi may jënd rek fekk naa fa ay kër déjà yaa ngi gis kon yàgg na bi ma ñibbee aussi en 2012 fekk naa fa ay nit évidemment ñu dëkk toog toog toog ba quartier bi naat ñu ne léegi ñu on va se constituer en collectif ñu woote créer suñu collectif def suñuy bureau donc ne léegi dañuy jël suñuy papier yi ñu am dem wuti régularisation foofu la affaire bi njëkkee ñu ñu ñu wut benn géomètre bu tudd un géomètre agréé bu tudd. kon da ngeen def ba pare soog a ut ay kayit. non da ngay wut sa kayit boo jëndee ba pare da ngay dem miite mairie ñu defal la délibération. waaw waaw loolu ngay njëkk a am. nga door ñëw wut sa papier pour autorisation de construire ñëw construire. Mm-hmm. bi nga bi ñu dëkkee nag boo toog la ñu door a wut pour régularisation pour wuti bàyyi. loolu nag il a fallu que ñu constituer suñu collectif. Mm-hmm. bi ñu constituer collectif bi. lañ dem lañ mm, lañ gis benn géomètre bu tudd Moustapha Guèye. Mm-hmm. c'est un géomètre agréé. mu ñëw defalaat ñu suñu plan lépp mooy plan bi ma yor nii léegi ñu jël plan boobu dugal mairie dugal euh, impôt et domaine pour risque pour def régularisation dossier bi aboutirul on ne savait pas pourquoi mais entre temps am na nit ñu fa ñëw ne dañ may ndox parce que quartier bi dafa pauvre amul ndox bañ fa dëkkee ba léegi mosuñu am ndox. maanaam dama bëgg a xam ndax ba léegi yéen amagoo leen régularisation bu normal. non ñun ay délibération lañ yore. ay délibération lañ yore ñun ñu fa dëkk yëpp ay délibération lañ yore bàyyi nag lañ buggoon wuti moo taxoon ñu def collectif bi wuti suñuy géomètre mu defaral ñu lépp ñu dugal suñuy document euh, à Rufisque pour wut autori pour wut euh, régularisation bàyyi. mais entre temps comme am nañ ne quartier bi amul ndox suñu délégué de quartier Bassirou Tine je le salue en passage taxawoon ci wutum ndox. di ñaan fu nekk ndimbal pour autorités yi may ndox dañoo toog ba équipe ñëw ci koñ ba dem ci Patine délégué de quartier. ne ko dañ leen a ñëw pour may leen ndox yore bay yore ay plan ñu dugg ci quartier bi pour def recensement bi mu duggee ci quartier bi di def recensement kër gu mu egg nekko ko ku moom kër gi ñu ne ko diw mu noté ku moom kër gi mu ne ko diw mu noté ndëkkante plan la yore bu ñu bind ndax Patine ci biir ci biir liggéey bi la la remarqué ne kii plan la yore te plan bi dañ cee bind état des lieux occupation illégale du TF 11847 DP moom comme liir na ko ndax waa ji de koo lemoon mu ne ko grand plan bi nga yor lan la j'ai vu nga bind occupation illégale di terrain yaa ngi gis affaire bi jaaxal ko mais boo waa ji ne ko man daal ndox laa leen wutal ndox laa leen di wutal ndox moom laa may si bon. ñu sympathiser kon prétexte euh, ndox la. la ñëwee pour mun a xam ni pour xam mun a xam ni ñu dëkkee mun a xam nit ñi. Mm-hmm. mun a xam turu nit ñi. Mm-hmm. donc prétexte ndox boobu la indi. Mm-hmm. entre temps bon bu ñu gisee loolu aussi ñu woote collectif bi ni am na lu xew te kon xamuñu li xew te gis nañ loolu nañ jóg. vérifier ñun suñu autorisation suñu régulation bi ñu dugaloon fan la toll ci laa dem Rufisque personnellement man maa dem Rufisque seet le conservateur toog moom mu ne ma plan bi ñu ma indil ak teef bi ñu ci bind ndax 11847 R lañ ci bindoon R ça veut dire Rufisque. léegi ñu bind DP. bi ñu bindee R bi li indi DP bi ñaa la ko expliquer R bi lañ bindoon nii. Mhm. ñu dem ñu dem Rufisque ndax R Rufisque la bi ñu toogee conservateur mu ne leen R bi moomu leen ko mais R bi benn titre foncier bu nekk daaru cubb la. kon du yéen mais comme seen géomètre liggéey na liggéey bi ba pare dellu leen foofu mu dindi air bi bàyyi coordonnées yi ngeen delluwaat kadars ñu dugal coordonnées yi xam fi ngeen nekk bi ñu defee loolu ñu delluwaat kadars kadars dugal coordonnées yi xool nañu yéen bokku leen ci ñun nekku leen suñu base de données ma ne ko ah mu ne woon ma ne ko léegi kon ñun fan lañ nekk parce que dañoo bëgg a xam ndax dañoo dugal régulation boo xam ne aboutirul te xamuñu li xew te comme gis nañu gars yi ngi démarché ñu def noonu automatiquement dem Pikine bi ñu eggee Pikine ñu boole ñu foofu ak benn femme femme bi xool ñu dañoo egsi rek mu ne ma ñu automatiquement mu ne ma xam naa dossier bi lii la ma wax ndax man mii maa demoon mu ne ma xam naa dossier bi lii du R mais DP la fa la DP bi jógee. lan mooy DP. DP ça veut dire que Dakar Pikine. d'accord mu ne DP la. kon à comprendre que 11847 bi nekkatul Rufisque mais Pikine la te 11847 bi mooy toolu Ablaye Wade euh, ex président de la République mooy toolam bi moom mooy titre foncier boobu. onze mille huit cent bon mu ne ñu TF bi sax dañ kaa jaay ma ne ko mu ne ma yéen fi ngeen nekk ak TF toolu yëpp dañ kaa jaay benn nit ko jënd. Euh, ne ko kan moo ko jënd. procédure régularisation boobu ban at ngeen ko doon def. bon euh, yàggul yàggul trop nag ah. je pense que bi ma tuxusee en 2012 ay 2013 yooyu lañ ko def ndax yàggul trop ñu ñu ñu dugal ko. ok léegi promoteur bi ñëw en 2019 promoteur bi en la ñëw. ndax bi mu defee loolu ma laaj ko kan moo ko jënd. kon yéen depuis depuis depuis deux mille euh, depuis deux mille ngi toog te régularisation aboutirul ngeen toog di di fa dëkkee tranquillement quoi. waaw tranquillement yaakaar ne dossier bi mu ngi en cours parce que ñun pour ñun dossier bi mu ngi en cours c'était quelque chose qui n'est pas rapide loolu lañ defoon ndax dañ ko tegoon ci ay loxo. yaa ngi ko comprendre loolu tax ñu toog mais nag bi waa ji indee document boobu ñu gis li mu bind looloo tax ñu jógaat ci dossier ñu ne non nan dem xooli loolu tax bi ñu defee loolu ba dem fa waa ji ni ma xam naa ki moom TF bi mais mënuma la kaa wax pour des secrets professionnels ma ne ko ok ma dem ci kees bi automatiquement dugal ce qu'on appelle droit réel pour xam kan moom moom TF bi sur le DP ma dugal droit réel bi ma dugalee droit réel droit réel bi génn mais ne mu génnee def ma jaaxal dama ko dugalee mu ne ma vendredi prochain ngay ñëw ndax vendredi laa ko dugal ça va donc ça va faire une semaine ma dem tombeek ouverture Massalikul Jinaan bi passé ñu ne ma nit ñi ñëwuñu dañoo dem Massalikul Jinaan julli juma mais da ngay jëm bu lëndi man leen amul problème ma dem lëndi ba aussi ma fajaru dem foofu ba ma ci kees kees bi ne sama droit laa jël si pour xam kan moom moom titre foncier bi ñu bi ñu accusé ñoo ko ñoom ñoo ko ci bi mu bi mu nee euh, sa titre foncier sa droit génnul mais demal bureau 18 ma dem bureau 18 maa mi en rapport avec un certain gars boo xam ne bëgguma wax turam ma dem ci waa jooju maa ngi koy xaar 7 heures ci ngoon ci suba ba 13 heures ba gaa yi jël pause waa di may romb de gauche à droite lu ne ma def grimacé naa ko pour waa ji xam ne yàkkamti na mais mu ne ma xaaral rek dafa mujj xam ne de sonn naa ci taxaw bi ndax amul seen fu nit mu ne ma kaay toog sama place ma toog ci place am di koy xaar ba mu pare mu ñëw ci man bi mu ñëwee ma jox ko samay papier reçu bi ma vayee woon mu ne ma sa sa droit réel génn na mu ngi nii mu génnee ko woon ma ko d'ailleurs droit réel baa ngi nii mu génnee ko won ma ko ne ma mais du ma la ko jox ma ne ko lu tax mu ne ma dama ci pare bu dama ciy liggéey dafa am lu ma ci war a vérifier mais suba na nga ñëwaat mardi ma ne ko baax na ma dem ñibbi mardi ba ma ñëwaat dama ñëw ci mardi bi pour dugg ci impôt et pour récupérer si ko ndax normalement war na ko transférer caisse. Mm-hmm. ba may duggu impôt et domaine rek la ma sama délégué de quartier woo ne ma gars yi indi nañ assignation mu nekk benn coïncidence mm-hmm. pour man loolu téye woon mu bañ ma ko jox démb. dafa xaw a coïncider. mooy assignation promoteur bi première assignation promoteur bi. bi droit réel bi génne aussi on a vérifié mu nekk SCI Daaru Salaam. mooy société immobilière Daaru Salaam bi ñu vérifié ñu ne Serigne Abdou Dia moo ko moom borom Sénico mooy directeur général Sénico ñoo ko moom. ñu xool mu ngi ko jënd en 2015 en 2015 la jënd titre foncier bi. te yeneen mu ngi jënd aussi mu ngi jënd huit hectares. huit hectares la jënd moom lañ bind ci droit réel bi moo nekk nii. huit hectares la ci droit réel bi léegi ñun ñu ngi installé wu sur cinq hectares suñu terrain bi cité bi sur cinq hectares la installé wu. yéen dëkk veut dire ne yéen fi ngeen dëkkee yëpp. waaw moom daal. dindi ko voilà moom moo ko jënd depuis 2015. waaw depuis 2015 c'est-à-dire moom dafa jënd toolu Ablaye Wade bi. Mhm. bi mu clôturé ndax Ablaye Wade dafa clôturé toolam. Mhm. ñun nag nekkuñu ci clôture yu lay Wade sori nañ clôture bi mhm. mais dafa mel ni daa jënd tool bi jënd ginnaaw tool bi. loolu nag aussi j'interpelle le président de la République l'ancien président Maître son excellence bu ci mënee rebondir mu rebondir ci parce que c'est les deux c'est les deux cent ñoom ñoo menacé ak de de diminution ndax waa ji loolu la bind ci assignation dafa bind ne pour jouer aussi sur l'esprit de l'avocat dafa bind ne ay murs ñoo fa nekk bindul ne sax ay kër fa nekk te foofu ay immeuble ñoo fa nekk ay R plus 3 R plus 4 R plus 5 ay ay plus ay immeuble ñoo fa chaque parcelle au minimum il peut y avoir cinq personnes ci biir ndax dina am papa maman les enfants. nga multiplié ko par 245 personnes ñaata population ñoo fa nekk. kon fii adduna nit ñoo fi ne. mais man dafa am li ma li ma xaw a jaaxal tuuti euh, ci ni ngay expliqué ah parce que clôture euh, toolu Ablaye Wade bi ay 2004 2005 je pense bien. waaw yeneen a ngi ñëw dëkkee foofu je pense bien vers 2008 comme ça. moom mu xaar ba 2015 euh, jënd titre foncier bi. yéen depuis 2013 2014 yéen ngi dugal euh, procédure de régularisation. Mhm. amoo leen ku ngeen toog ba 2009 yéen itam soog a déclenché waat. Mhm. Euh, procédure yi. Mhm. est-ce que euh, quelque part yéen foo footoo leen xamoo leen woon fi ngeen toog amoo leen fa droit. non mënuñu mënuñu foog ne amuñu fa droit du fait que fi ñu jëndee ay autorités administratives ñoo ñu jaay. ay autorités administratives ñoo ñu jaay ñoo xam ne ils ont mandaté par l' état ñoo fa nekkal état. toogal fi état mooy maire euh, maire yi. cadastre maire maire moo signé suñuy délibéré ak les préfets ñoo ko signé. je pense que ñooñu aussi am nañ pouvoir mun a signé papier yooyu ndax loo taxoon ñu joxoon leen suuf si ñu koy morcel ñu koy jaay. yaakaar naa ne affaire wu titre foncier récemment la mais ñoom ñoo doon jaay kër yi. léegi c'est que man xam nga lu ma bëgg a laaj dans tout ça. Mhm. damay laaj. ndax yow boo jëndee euh, terrain. Euh, balaa nga ci mën a tabax ma euh, damay la ndax da am titre foncier ba pare soog tabax walla boo amee délibéré rek war ngaa mën a tabax man man man man justement kiwuma ci loolu aaye ma ci affaire wu ay tabax mais loolu laa bëgg laaj bu fekkee ne il faut sama wax leer bu fekkee ne yoon mayu la ngay tabax terrain boo xam ne amagoo titre foncier yaa toog affaire bi affaire bi foofu la parce que dëgg la procédure bi mu wax c'est normal noonu la da am fii kay délibéré na nga ba ñëw ba ci kii ba mais dama ne durant procédure boobu balaa ngay am est-ce que am nga droit tabax. gis nga papier bi ñu papier bi ñu lay jox ci mairie. sama question dafa yomb. waaw man dama bëgg xam. waaw néew ma lii la lii la dama ne. Mhm. est-ce que yoon may na leen. ci procédure bi avant que ngay am ngeen di am titre foncier bi est-ce que. yoon may la yoon na leen ngeen tabax. walaay laay waaw wala. yoon yoon may na ñuy tabax. du fait que am nañ autorisation de construire yu jógee mairie. dañoo def wuti loolu ñu jox ñu ko ñu ñëw di tabax. ku ko amul aussi gendarmerie daan na fa jaar ci cité bi ku ko amul mu arrêté sa chantier. kon ñun li ñu li ñu mairie jox rek lañ sukkandikoo pour tabax ci lañ sukkandikoo aussi pour dëkk ci lañ sukkandikoo pour jënd. kon nag légaliser suñuy papier. kon yaakaar naa ne ñun ñoo ñooñu ñooñu ñoo fi nekk ñoo fi nekkaloon état. donc ñoo ñoo morcelé terrain yi ñoom ñoom woon suuf si jaay ñu ko bi ñu fi dëkkee aussi ba léegi amuñu benn problème ñu ngi dund suñu dund xëy un jour rek benn promoteur taxaw Serigne Abdou Dia bi ñu dégg aussi ne nit ku baax la yàgg nañ kaa dégg nee na muy def affaire yu bëri ci humanisme léegi man li ma li ma bëgg a xam li ma bëgg a xam. Euh, waaw waaw demal demal demal damay bañ damay euh, sekk. tey jii yaa a un problème qui se pose mooy euh, promoteur bi jënd affaire bi bi ko jënd kañ moo ko ko jaay justement kañ moo ko ko jaay parce que xam nga xam nga problème bi loolu la euh, am na ñu fa dëkk ba commencé tabax ba yëpp di kii ba saag mu soog di ñëw di jënd mais xanaa nit booy dem ci yoon di jënd nga xool li ngay jënd xanaa li ngay jënd ñoo war nañ wax ne que lii ah ñii ñoo fi dëkk am nañu délibéré ñu ngi euh, am ñu ngi ci procédure pour am titre foncier kan nag il faut que tamit. il wax ñu xam. Mhm. moo ko ko jaay Ablaye Wade. Ablaye dafa ne Ablaye Wade moo ko jaay titre foncier bi. Ablaye Wade ah, tax looloo tax ñuy interpeller pour mu leeral. Ah, ndax dafa jaay toolam jaay ginnaaw toolam. ndax ñun ci ginnaaw toolam lañ ñu. kon nag Ablaye Wade nekkul ci toolam. ñu ngi interpeller Ablaye Wade. son excellence pour mu intervenir ci dossier bi. parce que ton dossier qui est très sensible 245 familles ñoom lañ nar a génn ci biti tëj seen i kër donc bi loolu amee aussi première assignation bi ñun dañoo dawoon wuti ay wàllu bind nañ présidence bind nañ autorité yëpp waa présidence maa ngi leen di féliciter ndax réagir nañu luñ ñu wax dañoo réagir interpellé avocat wu mais euh, SAIDA Daaru Salaam bi ñu ko interpellé dañ ko wax ne si soiral sa procédure bu sisuwaat procédure mooy première assignation wax na ko la woon léegi non non dafa am leneen lu xew ci ah, diggante bi bi ko présidence waxee mu sisuwaat procédure bi dafa taxaw première euh, assignation bi mu njëkkoon dugal le 2 octobre pour le 23 mm-hmm. enroulé wu ko da ko sisuwaar parce que président de ko interpellé ci dossier bi pour mu sisuwaar procès bi mu sisuwaar ko de ce fait que ñu xool len document la retenir mu fournir ko waa présidence présidence xool mais ils n'ont pas réagi peut-être xëy na ñu ngi ci liggéey bi wala ñu ngi xool li ñu war a xool entre temps aussi peut-être le gars est un peu pressé mu dugalaat beneen assignation le le le 2 novembre la ñu deuxième assignation pour ñu wuy ji le 13 demoon nañ wuy ji nag tribunal le 13. Mm-hmm. bi ñu eggee aussi ñu jël suñu avocat parce que il faut que ñu constituer un pool d'avocats pour mun a défendre ndax mënuñu défendre suñu bopp. Mm-hmm. bi ñu jëlee suñu aussi suñu avocat dafa demander renvoi. renvoi bi mu ngi war a nekk le 20. le 27 bii di ñëw. léegi lan mooy lan mooy la position des des autorités locales mooy maanaam euh, mairie bi préfet beeg par rapport ak euh, seen euh, légitimité par rapport ak. promoteur bi mairie bi mairie bi mairie bi saisir nañ leen ndax foofu lañ dëkk bi ñu jotee suñu assignation mairie lañ njëkk a yi ñi nga xam ne ñoo ñoo ñoo ñu yilif. lu mu lañ ci wax. bon il a il a il a pris l'assignation bokk ak ñu problème yi wan ñu carrément kate. dinaa ko lijjanti maa ngi ci. maa ngi ciy dox problème bi du ah. lijjanti dafa leen war a wax ah, ndax yéen yéen am dégg wala promoteur moom moo am dégg je pense que. waaw xam nga xam nga actuellement waaw sous préfet jarul ay tourné autour du pot dafa leen war a wax naan que ne promoteur bi amul droit di leen euh, déloger foofu. wala yéen amoo leen droit di leen fa dëkk si si pas d'autres explications xam nga li tax xam nga li tax ñun ñu jàpp ne ñun dañoo am dëgg. non man damay laajte. ñu bàyyi ko mu dama koy laaj. position autorité yi lan la. position autorité yi mooy il se bat de notre côté parce que ñoom dañoo jàpp ne ñun fi ñu toog titre état lañ toog kon titre état bi ci lañ mun a def papier am ci bàyyi loolu mooy titre état titre état nag buñ ci toogee ba autorité yi jox ñu ko ñoom jàpp nañ ne fi ñu toog légal na léegi nag bu promoteur jógee fële ak titre foncier ñoo bëgg a attaqué suñu suñu suñu titre état kon il a pris titre état bi def ko titre privé. kon dans ce am na lu fi war a leeral. du moment où euh, présidence euh, ñoom euh, boo xoolee d' li mu wax nekk na ci seen côté mën nañ am ne mën nañ am xel bu dal que ni problème bi dina réglé wu et que cinq familles yooyu noonu nga xamante ne fas yéene nañ leen expulsé foofu loolu yëpp du ci amaat incha allah xudoo si ñu ngi lay daal di jaajëfal waxtu bi moo ñëw dab ñu bàyyi rapidement Babacar moom mu di tàggatoo rapidement waaw li ma li ma li may tàggatool mooy euh, may lancer appel à présidence de la république. mu mm-hmm. nga xam ne moo yilif adduna bi Sénégal yëpp. Mm-hmm.